kenn ci ñoom euh, ku ku nangu ñëw ci euh, plateau bi mais bu ñu desee ba tey ci déclaration am ndax moom déjoué wul un peu plan yi pouvoir bi amoon bu ñu gisoo dispositif sécuritaire bi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci capital bi xam nga état rôle am mooy assurer la sécurité des biens et des personnes mhm. loolu mooy rôle régalien wu état premier rôle mooy sécurité mënuñ ñëw li xew ci mois de mars ñu ko ñu invité ñu convoqué la nga def li nga def porté en mortal combat gis naa ni au moins sur le plan du vocabulaire ça a beaucoup évolué et c'est une bonne chose <laughs> parce que man damay saluer aussi damay wax toujours opposition bi warul nekk une opposition nihiliste bu ñu ñëwee gis ci nguur gi lu baax ñu ko wax bu ñu gisee lu rafetul mën nañ ko wax à leur façon mais ñun tamit bu ñu nekkee ci nguur gis ni ci langage bi ci vocabulaire bi am lu ci évolué ñu sante ko xaar ko nag aux actes <laughs> mhm. parce que c'est dans les actes que les gens vont se poser mais li xaw mois de mars ñëpp ci teg bët convocation la war rek ay nit dugg ci def ci leneen mais état bi du bàyyi nag loolu du ñaar. kon jël ay disposition état bu nekk jël ay disposition am ñu fi am ñu fi waxoon audition du am am ñu fi tëkkuwoon état état bi nag du toog seetaan. mais mais mais pour une simple audi audition est-ce que jar na dispositif bi yëpp parce que tout à l'heure yaa ngi koy wax kaay wuy ji jarul tintamarre ak folklore bi yëpp nga xam ne mais mars 2021 loolu état bi jàppoon fii homme politique yu bëri du benn du ñaar wuy ji nañ ay convocation c'est pas la première tous les jours d'ailleurs am na un politique yu amee quelques difficultés yeneen yeneen kasu ñu convoqué leen ñu dem wuy ji donc bu fekkee ni mois de mars li am am 14 morts am ci 14 morts. Mhm. état bi mënul seetaan ñu convoqué la nga def yooyu te du mën a jël ay matukaayam état bi dafay jël matukaayam yu mat sëkk waaye coalition Benno Bokk Yaakaar ba nga xam ne moo nekk ci nguur gi tam jël ay matukaayam politique yu mat sëkk ba nga xam ne lépp jaar ci jàmm xam nga man xaw ma lu xaw ci dossier bi. xaw ma lu ñuy tuumal Ousmane Sonko ak li ñu ko tuumalut xaw ma ci dara def na ko ou defu ko xaw ma ci dara dama jàpp ni loolu la justice war a def pour leeral li ci am parce que autant Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais jouissant de tous ses droits autant la petite la demoiselle aussi est une citoyenne sénégalaise qui a ses droits moo wax dëgg ou waxul dëgg justice moo war a atte te justice bi tamit atte na fi ñun am nañu ay responsables de haut niveau tey ñu ngi croupir en prison parce que simplement une jeune dame accusé na leen Sitor Ndour qui était ancien directeur du COUD ba tey mu ngi prison liberté provisoire sa tere nañ ko ko quel est le sénégalais qui s'en est ému ou bien Sitor n'a pas les mêmes droits que Ousmane Sonko. Mm-hmm. ou bien parce que quand en politique boo nekkee ci yenn posture waratoo war kenn warutal la tu es tu es une licence. Mm-hmm. loolu c'est inacceptable. et je crois que que. gis nga àdduna damay wax nguur nguur wu yàlla rek moo dul jeex. Mhm. ku ci nekk ëllëg da nga répondre tes actes bu fekkee ni lii am na ñu ne Ousmane lu wuyu ji. Mhm. kenn du ko atte. mais kenn dootuñu atte ci kenn homme politique Sénégal. Mhm. Euh, euh, joxu leen ko euh, tournure politique déjà boo waxee dugal ci la coalition benn Bokk Yaakaar dañu war a taxaw dañu war a nekk en alerte et même yow ci say wax ñu sentir ci mel na kuy menacé pour diir que li amoon. mois de mars dootul am. man dama jàpp ni euh, Fatou nañ wax dëgg rek te yàlla tax ñi ko njëkk a politiser mooy ki ñu convoqué conférence des leaders de Yewwi ko def conférence de presse seen seen militants yi chaque jour ñu ngi leen di convoqué ci tribunal seen militants Yewwi yi ñu ngi leen di convoqué chaque jour ci tribunal amul kenn ci ñoom ko am ma xaama ñu defal ko conférence de presse soo defee conférence de presse nga menacé parce que foofu la sax gis naa ni entre propos wu Khalifa Sall yi mu tenir tey te ñun ñëpp ñu war cee mën a man mën a mën mën mën koo jooytu parce que rafetul. Ah ak yu Ousmane Sonko tenir à 16h parce que <laughs> mënoo nekk ne lii xewoon mois de lii xewoon mars fii mën na fi amaat fii état bi nag dafa am yoon mu république lañ nekk état de droit nekk état de droit mooy citoyen yëpp soumettre au droit état bi tam soumettre au droit loolu mooy état mënuñ ñu toog loolu xam mois de mars faatu ñu ñëwaat ñu ne bon nañ croiser le bras. nañ bàyyi seetaan lu bu boobaa état bi day am responsabilité première maintenant luy ak les gens ont posé bu ñu posé acte politique ñun mouvance présidentielle ñun coalition Benno Bokk Yaakaar duñu croiser les bras un acte politique apporte une réponse il y a une réponse mais mais avant même lii parce que dès le départ bi ñuy wax ci mbir yi fin février ngeen commencé sur les plateaux tout le temps mbir mii da ngeen koy ramener à la politique comme de l'autre côté également vous la coalition Benno Bokk Yaakaar non non soxna si soxna si nañu waxante dëgg te yàlla tax c'est-à-dire que lii nii première conférence de presque qui appelle à mortal combat kan moo parce que moom simplement convoqué nañ ko une sénégalaise porté na ko plainte et moi je trouve que c'est pour quelqu'un qui aspire à diriger un pays la tuumalaa yenn yi nit am courage yu dem xam nga ndaw si laqatuwul laqatuwul si ay portable dafa dem porter plainte dem fu mbax na doone benn mu ne lii ak lii maa ngi koy tuumal diw mais kooku li war a gën a rafet am na ay preuve am na ay preuve que deful dara am na nee na sax am na ay preuve que nguur gaa ngi ci biir na génne preuve yooyu am na ay preuve que le dossier est vide vide loolu kay y de débat débat bi mooy nga da nga dem comme que le dossier est vide mais tu vas en sortir grandi mais parce que des pontes du régime la ñuy ci dossier bi ku ci mel ne Mamour Diallo ci benn vidéo boo xam ne bi mu fuitee yàggul loolu du dëggal sa complot bi nga xam ne ñu koy wax xam nga man bëriwuma nag li may déglu ay seetaan ay vidéo ay nit wax ne man li ma xam mooy ndaw si moo ko attaqué. justice justice justice fu na doone benn bu dee Mamour am na lu mu ci taq ci complicité ou bien ci complot. at yoon dana ko atte te Mamour tamit sera soumis à la, à la rigueur de la justice ku ci mënta tax et loolu président wax na ko départ ku ci mënta tax ci loolu justice day def luy liggéeyam bu fekkente am na pont bu nekk ci nguur gi bu dugal pour def comploter mu leer ñu prouver ko mais justice dana dal ci kaw parce que bu boobaa Ousmane sera dans une autre posture. mais mais est ce justice est ce ngi ci yoon boobu parce que ñooñu jusqu' à présent kenn dégluwu leen. waaw ma ne xam nga soxna si man li ma jàpp mooy justice bi sax dafa yéex ci affaire bi pour man dafa yéex parce que depuis mois de février ñu nga ca ndaw si mu ngi réclamer ay droit am. ndaw si ñu ngi koy saaga ndaw si ñu ngi koy maltraité mu ngi réclamer ay droits à un procès juste et équitable mais c'est une sénégalaise dama jàpp ni sax rythme bi dafa yéex mais comme on le dit le temps de de, de de la justice n'est pas le temps de la politique n'est pas même le temps de de de, la république. Mm-hmm. Euh, Khady wax na la ko sànq c'est-à-dire euh, aujourd'hui li ñu gis tey Dakar. gis ko démb amaana suba même si Ousmane Sonko a appelé au calme que militant bu ñu ñëw dinañu ko gis arsenal amada ah, bi ñu gis takk der gendarmerie euh, cette fuite bi nga xam ne am na euh, ci Oscar euh, Sierra bi est-ce que Oscar Sierra gis nga ko cest à li nga xam ne moom moo fuité hmm. dem ci presse bi ñu alerté pour que police nañu taxaw parce que dañuy convoqué loolu la nit ñi xamee bés ba ñuy convoqué Ousmane Sonko déjà le 3 novembre presse bi jot ci liir nga ko démb monsieur ngi ci presse bi loolu xanaa doon ma du vidéo du chaîne YouTube c'est la presse en fait gis nga ko hmm. euh, yooyu noonu yëpp am ci mbir mi euh, takk der yi sapeur pompier yi est-ce que loolu euh, yéen yamale ngeen mbir yi ci de personnes privées comme une affaire privée concernant Adji Sarr Ousmane Sonko tout simplement mhm. nañ quatorze morts bi am mars 2021 ak takkadeer yi ñu fi fekk ci mbedd mi takkadeer yi c'est pour notre sécurité parce que biñ ko jëlulee matukaay yi gis nañ lu jur ci réew mi ñu jàppee ni citoyens yëpp ay citoyens bu ñu la convoqué da nga wuy ji tranquillement te du am benn jafe-jafe man mii man mii man man man à Kaffrine su ma doom convoqué nañ ko fi tribunal kenn déggu ko convoqué nañ ko tribunal ci affaire politique ci affaire sànni nañ sa papa xeer réagir nga ñu convoqué te kenn du dégg parce que ñëpp fii sont des justiciables bu ñëwee nag am na menace bu pesé état bi croiser les bras mooy c'est un état irresponsable dans tous les pays du monde dafa am ay menaces yu ouvertes te autant ñi ngay waxee texte boobu te loolu itam c'est le jargon c'est le jargon même tey bu ñu doon wax Ablaye Sow dans leur jargon policier ou gendarmerie ou tout ça renseignement yeneen tur la ñu utiliser loolu quand même ça c'est dans tous les pays du monde c'est pas une première dégg naa ko mu koy bàkkoo di wax alias tel mais c'est mal connaître le système et ça ça dafa may woon sax d'ailleurs la capacité à diriger un pays alors qu'on ne connaît pas certaines astuces comment fonctionne un état un état c'est d'abord un renseignement un état c'est d'abord de l'information am na lu nga xam ni yow xamoo ko man xaw ma ko te état xam ko état nag du toog xam lépp croiser les bras mm-hmm. yow defoo dara alkaati yi nga gis ci mbedd bi lu mu lay tiitale ku deful dara amoo benn jafe-jafe. waaw mais loolu même askan wi dañu am la psychose ku yeewu sa bopp koñ gis euh, camion taxaw takk der gis sapeur-pompier mais loolu mën na tiital askan wi au delà même de Ousmane Sonko commerçant bu ubbi à chaque fois bu ko convoqué day coow day am dañu yàq am lu ko rassuré ku nekk na fekk ni ni nga ko xoolee mais jama jàpp ni. Euh, souvent effet contraire bi lay bu bari nii ci ci ci alkaati yi souvent c'est que mu ngi waaj am mais émeute moo fi amoon mois de mars. Mm-hmm. léegi dama leen di laaj seen seen sa sow yëpp ñu denc ko ñu bàyyi nit ñi ku nekk def loolu neex ñu ñëw wuy ju plus euh, war a war dem wuy ji wuy ji 9 nga jóge sa kër 8 heures 45 départ ndànk dajale 3 groupes 4 groupes indiwaat coow indiwaat tension xeex am fa bakkan rot ci kan mooy responsable. d'accord état bi mooy responsable. Mm-hmm. donc état prendra ses responsabilités loolu c'est des responsabilités régaliennes de l'état. Mm-hmm. politiquement nag laa wax ni. nous aussi on apportera la réponse politique tey ñi ko politiser xam ngeen leen tey biñ leen convoqué kan moo njëkk def conférence de presse da leen bàyyi rek ñun ñi ci askan wi toog ci seen télévision yi toog seen rajo yi toog seen réseaux sociaux yi wax joxe seen version ñun nga xam ni organisation politique lañ ñu croiser les bras ñu ngi à gauche à ñoom ñoo toog ci plateau yi même si defuñu conférence de presse pour wax sax ne li fi amoon dootu fi amati et que ñu ngi préparé di xaar peut-être loolu ah, moo riposteloo la coalition de li ñu wax bokkul te de leader bu fi wax ci mouvement présidentiel dafa ne nañu atte nañu atte parce que aussi mënuñ ñëw une une jeune fille comme ça porter plainte ba pare ñu ne kenn du ko atte te ñun ñu am suñu nit te yu courir en prison ñu am suñu nit yu perdre seen mandat député parce qu'ils étaient accusés mhm. te chacun est présumé innocent jusqu'à la preuve du contraire kon lu ñu mën a defati mhm. mais ñoom ñoo def conférence de presse di ci attaque Macky Sall Macky Sall demul Sweet Beauty Macky Sall violé wul violé wul couvre-feu Macky Sall seexalul suukar Ousmane Sonko pour mu dem ci mu dem Macky Sall xamul ndaw si pourquoi ñu ci tudd Macky Sall mais Ousmane Sonko aussi la, la tenue du procès lay exiger euh, que le dossier est vide amul dara yow loolu lecture mais loolu dama jàpp ni il y a une contradiction flagrante c'est quoi la ni que le dossier est vide te nga oote woon mortal combat parce que si le dossier est vide le tribunal c'est une séance ouverte mhm. le procès c'est une procès war le public est là si il est vide tu peux apporter la preuve irréfutable que c'est vide mënul nekk nga ne affaire bi dafa vide dara amu ci ba pare ay leader politique bàyyi seen lépp toog di conférence de presse. di wax ni le pays parce que ni muy ni que dafa vide noonu lay waxee ni que piège la bu ko ay comploteur euh, tegal. Euh, pour mu bañ a bokk ci élection. Euh, man bi may ñëw ci bi dañ maa élection deux mille deux may ñëw fii dañ maa piégé ñu ne vingt une heures ku nekk na dem tëddi nga profité si sa plaque laissez passer député nga dawal sa oto yoo rek kenn àndoo ak chauffeur nga dawal nga ne da nga piégé. buñ koy génnee këram dañ koo jox suukar piège xanaa xanaa kon sa famille est complice. daa ne woon maîtriser woo ci dara de yaa ngi dugg ci biir de. mais li may dégg ngeen di wax la man de ma ne la. xaw ma est-ce que am na lu ñu am xam lu ñu amul am na lu nga xam faatu c'est c'est des faits moom néewu ko néewul na dem na fa xam nga lu ñuy wax viol am na am déet man viol laa wax ni mënu ma cee seede mais dem na place ba. jóge na këram guddi loolu kay loolu c'est devenu de notoriété publique. Mhm. mënatu ko benn moom ci moom est-ce que tournée politique bi eh, expliqué wul un euh, la convocation pour audition bi. que est-ce que vous la question euh, inverse est pas parce que yëg nañu dañ koy waaj di mu mu def tour bi pour un peu en politique c'est ça la démarche ba pare man. avocat bi ah nee yow loolu nga jàpp. man jàpp naa loolu mën na nekk mais li ma gëm. mooy avocat bi ñoo wax ni ñoom ñoo demandé ñu entendre ko ñoo demandé ko juge bi eggali dossier bi. Mhm. kon lu ci jar coow yow yaa demandé nga ne yow da nga bëgg ñu setal sa sa der. kon fii jarul conférence de presse bu nga xam ne dirigeant yu léew yi nga xam ne amul benn liggéey ñu nga xam ne les les autres là les les les les ces lieutenants là les lieutenants Ousmane Sonko là def conférence de presse sur une barrière là et justement ci ci foofu dégg nañu Khalifa Sall mu nekk euh, dàkkuñu sax euh, remake euh, événement mars 2021 mën na amaat bu fekkee dañu condamné Ousmane Sonko tey ban jàngat nga am ci ci déclaration boobu ñu def remake mars 2021 mënatu fi am moom Khalifa boo ko bu jéemee yoon mbedd maa ngi noonu mhm. na def mu li li nit mën a jur et puis loolu jàpp naa ni sax Khalifa war a ko wax parce que 14 morts on ne doit pas s'en vanter 14 morts je suis sûr que ce ne sont pas ses parents ces enfants là c'est pas ses parents bu mënee waxee ne li xewoon mars 2021 na fi amaat mu mën koo yéene sax réew mi war na tiit ci qualité homme mais yéen est-ce qu'à votre niveau yéen a ngi imaginer ce qui pourrait se passer bu fekkee euh, Ousmane Sonko dañu ko condamné mais mais mais fii Abdoulaye Wade fii Karim Wade condamné wuñ ko fi. Khalifa Sall mii di wax condamné wuñ ko fi. Mhm. Euh, Ousmane Sonko dafa gën Khalifa Sall dafa gën Ablaye Wade. culpabilité bi. mais mais est-ce que du jox dëgg aussi monsieur monsieur ministre. xam nga man bëgguma sax àgg ci boobu. parce que dama jàpp la preuve du contraire il est présumé innocent. waaw. et sa culpabilité ne peut qu'au tribunal. Mm-hmm. il n'a qu'à donner les moyens de. alors avant même ñuy yegg foofu euh, euh, gis nañu Karim Wade gis Khalifa Sall et souvent ñoom loolu la wax que le président de la République choisit même ses ses parce que loolu la def 2024 la def également dégloo tey euh, Khalifa Sall du ñu accepter encore mu jëlaat keneen euh, xañ ko euh, ay droit wam pour xañ ko mu bokk ci ci élection yi est-ce que du jox dëgg ñuy wax quand li nga xamante ne moom moo fi jot a am que ne bii nag day nekk la goutte de trop bu fekkee jàll na Fatou nañu waxante rek te dëgg tax kon yeneen candidat Ousmane Sonko bu muy nekk candidat en 2019 c'est parce qu'on lui reprochait rien du tout mu nekk candidat boo nekkee ab ci ab réew nag dafa am ay règles li ngeen di wax li c'est très dangereux parce que lu tax mu dangereux. c'est une question de question non dama lay wax lu tax dangereux mooy day dem ba homme politique warutul nekk wuyu yoon. moo tax may tontu. sama bàyyee ma tontu nag ma tontu. xanaa nga bëgg maa tànc rek. du tout allez-y. dama jàpp ni homme politique ak sénégalais lambda ñoo yem ci yoon. Karim Wade bi ñu ko reproché li ñu ko reproché ba tey mu ngi contesté mais utiliser na voie yu nga xam ne jàpp na ni yooyu mooy ay voies yu normal mm-hmm. état bi tamit jaar fi war a jaar justice tranchée. kon cette affaire est même chose pour Khalifa Sall le procès a été contradictoire public où les droits de la défense ont été respectés le tribunal l'a condamné mm -hmm. ce n'est pas une première ce ne sera pas une dernière dans le monde dans tous les grands aujourd'hui mais Sarkozy est inculpé où est le problème a été inculpé où est le problème kon lu tax ñuy mën a exempter dans nos pays bëgg à chaque fois boo defee dara nga laqatu ci sa mbubu politique dëgg naa sax Malick Gakou il a fallu que mu jàppante Gaston Tall rek mu ne non Macky Sall moo ko nekk ci ginnaaw pour empêcher ma candidature parce que il sait que xam nga ni sa waaye ku nekk xam nga loo peese ci réew mi. lu nekk lu nga xam ne peese ci réew mi Macky Sall lu nekk dans une dynamique de respect de faire appliquer les conclusions du dialogue national ba ne nañ envisager. demande au ministère de la justice d'envisager regarder les possibilités pour que tout le monde puisse retrouver ses droits nga ne Macky mu ngi travail à éliminer loolu y a même pas deux semaines au conseil des ministres la wax ni demande ministre de la justice na étudier les voies et moyens pour que tout le monde soit dans le jeu kuy wax loolu du xeex kenn gis nga fi élection mooy joxe carte koo éliminer ñeneen ñi reporté wu seen voix ci feneen bon Macky Sall bu muy gagné élection yi dafa am cinquante si les si il y avait des gens qui n'étaient pas une stratégie politique. si pour pour écarter Ousmane Sonko nit ñi amnistie Karim Wade et Khalifa mais xanaa opposition du am candidat nit ñi d'accordul ci ak Macky Sall du ñu wooteel Macky Sall ñu wooteel yeneen candidats yi. Mhm. c'est pas un report systématique sur Macky Sall c'est pas parce qu'il y a pas un candidat viable que tout le monde sera sur le président Macky il faut que le débat politicien pollue le débat de justice politicien bu ñu laal rek mu laqatu. sur oui dama bëgg a nekk candidat moo tax d'ailleurs on déclare les pour s'immuniser alors que benn parti jaaragul procédure normale pour dégager une candidature et, et, vous, et, et vous vous posez pas la question aussi pourquoi aujourd'hui euh, justice bi euh, joxuñu ko cër dañuy jàpp ne dañu ko instrumentaliser moo ko joxul cër ñu bari ci askan bi loolu la ñu jàpp que ne souvent on utilise la justice pour quand même éliminer des adversaires politiques vous savez ça c'est une vue de l'esprit ba pare li nga bëgg wax mooy tey justiciable tribunal boo demee tribunal Dakar ñi ñu fay àtte ñëpp c'est parce que am na lu neen bëgg a xaj ou bien ñooñu amuñ droit ñooñu dañu ay sénégalais sénégalais bu am tribunal Kaolack ñu war koo àtte mu am ay jafe-jafe ak ak benn nit ak benn doomu Sénégal nga ne ma kooku c'est parce que am na lu ñu ko bëgg a xaj moo tax ñu yóbbu ko tribunal. Mm-hmm. kon réew du amat benn réew du amat ci tribunal ci àddina.